waxtu waxineen lii wayu xutbu la du neen yu def weeñu dul kemam naa sant yàlla mi ma may xutbu bu mat mu di ma may di fay ay di dàqi mooy ci léeri booti ragalam di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam-xamam di ma amal lu ma amul di ma wutal di ma watul di ma digal di ma tamal nangoo yamoo ci ndigalam di ma yërëm di ma tëfal di ma jariñ di ma taral def ma ma mel ni ku ñu fal ku tabibee yi ngërëmam di ma dugal fu may musal di ma fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak i fetal mu boole diigali walam di ma setal ci waxi bañ ba ku ma yéene jëfi bañ mune ko def mune ne suliñ daanu te tuppul fetalam dima ma dima di dima tayal di ma tayil wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julit yi bokki taalibe yi fu ngeen man di nek ci àddina warngal këpp di top li nga xamne ne si ni mooy Khadim TV ñu ngi fi ci Touba Jannatu Nahim fi nga xamne ne ni fi la siège social bu ahibal Khadim di Nusrat Din Qayyim nekk tey ci alhamis ji depok 11 mars 2021 dëppoo ñaar fukki fan juróom-ñaar ci rajab ndeyu koor 1442 ci ati gàddaay gi sabab bi nag mooy xam ngeen ne jamono yëpp Cheikh Moustapha Sëñ Mouhamadou Mbacké mi ngi soññee ci école yu mu war a taxawal ngir royee ko ci maamam ji sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma te loolu itam sëñ Cheikh defoon ko ngir dëggal waxi maamam ja nga xam ne sini moo ko ñaanoon ne bil Moustapha li banal quddus madrasatan bi hayasul azawal jaxal wal kabadu doon ñaan yàlla na ko nag ma may ci daraje Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam école yoo xam ne ni daara yoo xam ne ni ci la agréer di sëñ si Ahmadou Mbacke sosoon ko ñu bare baree bare jànge ci tey jii mu génne produit boo xam ne résultat bi kenn wérantitu ko kon nag sëriñ Moustapha moom itam bi mu ñëwee rek a roy ca maam jooje di def loolu nga xam ne mooy ay war a tabax ne mi ngi ci rond point xam ne boo jógee Diourbel wala nga jógee Dakar fii ngay jàdd jëm Touba Fall wala nga war a jàdd jëm garas Dakar foofu fi la site Ahibahil Khadim nekk maanaam muy siège social bi kon ñëw fi nag tey jii sëriñ Moustapha moom sëriñ Mouhamadou Mbacke war a ñëw ngir teg si xeer woowu loolu nag war a nekk kon bis bu historique ndax ni ma ko waxee tey la 11 mars 2021 waaye ñu fàttali ko ne jumaa njaareem kat Serigne Touba mi ngi tegoon xeeru ci 11 mars 1918 jëloon turéel ba jàng wa isiyaar fa nga jooju ci alxuraanu karim ko ba téye ko maanaam ndabul ciment bi kon moo tax maanaam bés bu la waaye ba ba tey bés la ndax 11 mars ji ci la ñuy fàttaliku sëñ si Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma mu wujji woon boromam ci 11 mars 1978 ñu daa ko màggal tey ji ci tey ci bis bi ci Taïf waaye xam nañ ne fi jamono toll nag tax sëñ Abdourahmane Mbacke mi nga xam ne moo ko fi nekk rek nag mën nga ko faa màggal kon ñu dàkk bis boobu moom itam ngir teg ci xeer yu barkeeloo ko ci bis bu sëñ Ahmadou sëñ si Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma boobu waaye ba tey bis bu la ndax Kazu Rajab bi ci ci lañ tegoon tegu xeeru maanaam xeeru jëkk ci jumaay Taïf kon bis bii ci daje bari na lool kon daal ñu ngi fii di ko waajal ñu ànd ak suñu caméraman yi nii ak mboolem ñi nga xam ne si rek ñooy euh, journaliste ahibal xadim li nusati diin xawim ngir lépp loo xam ne si na fi ñu war leen ko dittal kon inshallah allah ba ci kanam wey na xamiiful fu mu jëm jës bul bi dafa daw bi jës ju jukkeñ fa mo aw te ku ko dab na daw daw raw na xamiiful fu mu yam lu jitu li dafa dawal daara wante ka dawal naka fëxal raw bi akam akam wa kenn gisul fandas ma dal di juk dafal ko bi jës di way ka way nabi di ko ko fay na way na bii ma di ko way ba fa nu jëm kemub li nuy dox di ko wax yi la ak moom ki mu way da koo gërëm ba di ko way làmmiñ yi dal di ko gërëm ma far jofal man di ko way di barkeeloo ka di ko roy ñi way ba daane ko way ak wayul ñu ne wedam lu ma wax lu ma waxul wuute ga fees na nëbbuwul تي بفي تي دنا فسل لودا يا خم شاي وام دنا خمال خم خم خمال كو خم كنا خم كو بغا جيس